bang Bachir tu as posé la question. Mais, mm. euh, euh, responsabilité xale ñi ko jox seen xale mm-hmm. mais ñi ko jox seen xale da nga fàtte. Mm-hmm. ñooñu du duur doom joxe ko kooku neexu mm-hmm. même ñi sax fibre maternelle parce que parce que les gens oublient au Sénégal. qu'il y a des femmes qui sont absolument dépourvues de fibre maternelle. xam nga ñun en Afrique surtout particulièrement Sénégal. ñu bëri dañ koy sàng. couverture mm-hmm. sutura maslaa mm-hmm. mm-hmm. xam nga ma la wax nee naa tey ji bi ñu légalisé woon góor jigéen homosexualité nga bàyyi àddina fii ñu bëri ñoo gis ñu marié góor jigéen ñu bëri ñu marié nii si daa dañ fi bëri drame suñu ba parce que gu dañu euh, euh, camouflé dem seet euh, jigéen jël benn jigéen tout ça tout alors que yàlla xam na ne

waaw dégg na ay reportage ñëpp ñëpp partout xoolal ne neera ci neera ci paal bi nee naa li ko yàlla may bu ma ko yàlla mayoon ma nekk milliardaire <laughs> nee la mën na wax ñeme na na am na fit gu raf nee naa la actuellement man man man yërëm naa man ñi ko téye laa yërëm

यहून जीरो करने की करता है इसका जीरो जीरो पता है तो जीरो करने जीरो करेंगे रोज दिन जीरो लगता है लेकिन मतलब नहीं यानी मैं पिछले से साल नहीं मैं से दुगला सी सी मैं याद है मुस्तिक मैं से साल मैं मैं मैं तो आला पता क्यों सी नेगर मैं लम से टच कब पाप में पसंद ना निकले mais mais mais dama ma ma rakk nee la laaj. nee bi la tax xam. <laughs> nee la rek la nee la sam laaj. nee la yow tey si damay ma sànni tàcc ba ba ba si sa plateau. ah dara naa fi. non non non non non non non dara naa fi. tey bi boo ñëwee show la. non tey show la tey tey li ma leen show may la. daal dama koy may dama ne dama ne dama ne dama leen may man du ma seen meeram man kenn man neela kenn du ma la kenn du ma neela kenn du ma neela ñu ko jure ah xam nga kon ku lu mel noonu tey tey jii duudu quelque ah. chose comme ça ah, yow ñu toog ba ci saraan neela neela dem crescendo di yéeg ba mu ne xal neela ba mu ne damay jël xale rek man ñi ko xam ñu bëri xam nañ ne noonu ñëpp ñëpp tiit